waaw Cheikh je donc nekk adjoint au maire de Mbao waaye tamit un investi sur la liste ou la coalition andisiko lutengir Sénégal dirigée par le président Abdou Karim Sall. waaw donc campagne bi commencé depuis dimanche avec une très grande assemblée générale présidée par notre président de coalition Abdou Karim Sall qui ci siège au euh, le siège national donc biñ ci candidat bi été réuni à travers. les région et les départements les communes pour faire pour dérouler son programme de campagne sur le plan national waaye nag ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo des fii ci commune bi ñu nit mettre nañ en place une stratégie de campagne boo xamante ne moom la ñuy dérouler au niveau de la commune de Mbao muy découper commune bi en plusieurs secteurs secteur bu nekk responsable ya fa nekk di def lu ñu tuddee ay porte à porte wala ay visite à domicile parce que jàpp nañ ni le président Abdou Karim Sall euh, douze ans mi ngi nii mu nekk ci benn langue doon campagnal benn liste waaye élection législative du 17 novembre yi ñu jëm euh, daf ci am coalition boo xamante ni moom moo ko dirigé mu tudd la coalition ànd si kóolute ngir Sénégal te loolu yaakaar naa ne bi ñu tegee coalition beeg léegi matul ñetti weer kon dafay jaadu ñu dugg ci kër yi wax ak population yi xamal leen ni le président Abdou Karim Sall yor na liste boppam waaye it daf ci ànd ak ay doomu mbaaw yoo xam ne daf leen investir ci biir liste bi pour ñu àndandoo dugg biir assemblée nationale donc message boobu la ñuy porté di dugg ci kër yi di ko wax ak borom kër yi. di ko wax ak les porteurs de voix di ko wax ak les identités remarquables ñu gis ni au niveau de la commune quand même loolu dafa suscité benn engouement au point que nit ñi bi ñu déggee ni Abdou Karim Sall dafa am coalition boppam ñoom ñëpp dañu laxasaayu fas yéene ko jàppale ànd ak moom fii ci commune de Mbao parce que jàpp nañ ni ki nga xam ne moom mooy seen maire bi mu nekkee ci boppu maire yi beeg léegi di def liggéey bu mucc ayib tey bu ko yàlla mayee mu dugg biir mën a porter les doléances de la commune au niveau de l'hémicycle loolu moo ñoom ñëpp dinañ jóg àndandoo jàppale seen maire jàppale seen président muy Abdou Karim Sall pour yóbbu ko biir assemblée nationale ak ñi nga xam ne ànd naa ak ñoom ci biir coalition ànd si kóolute ngir Sénégal. waaw samedi bi tey dañu daje woon di def lu ñuy woowee réunion d'évaluation par rapport à la première semaine bi nga xam ne euh, ñu ngi koy def ay activité ci terrain bi donc loolu dafa jaadu parce que nit boo nekkee ci benn mbir di ci yëngatu di ci liggéey dafay jaadu euh, boo liggéey ab diir nga toog natt sa bopp ak ñi nga xam ne ñoom nga ko ñëpp ngeen def lu ñu tuddee évaluation donc bi ñu waxtaanee. par rapport à la première semaine au niveau de Mbao gis nañ vu tey localité yëpp responsable yi ngi wàcc di def à domicile donc loolu a leen santoon loolu la fi président Baye comme message a porté un message ñu dans les localités donc nous avons une satisfaction donc ñu responsables ñaaxaat responsable yi ñu gën mobiliser wu privilégier les visites à domicile nous avons askanu Mbao xamal leen ni tey ki nga le président Abdou Karim Saldi, maire de la commune a dirigé diriger la liste coalition Euh, ànd si kóolute ngir Sénégal te incha allahu rabbi tey ñi koy porter à l' assemblée nationale c' est vrai dans les régions et dans la diaspora dinañ ci indi seen contribution mais ñun jàpp nañu la plus grande contribution tey ci commune de Mbalo war a loolu moo tax ñu àndandoo nekk benn say joxante loxo bokk ndey bokk baay di wàcc ci terrain bi pour waxtaan ak askan. waaw loolu nag loolu loolu moo tax nag ñu gën a war a wàcc ci terrain bi bañ a privilégié li ñu tuddee parce que caravane yi tentamar la rek tapage ngay def amul njëriñ. li gëna euh, am solo ci campagne électorale moy message bokoy koy porté mu egg ci ñinga xamné ñom ñoy cibler, cible et cible tay population parce que population yi le jour du vote ñom ñoy jël sen carte électeur dem ci bureau de vote yi voter. donc ces populations là ils ont besoin d'avoir le message bi nga xamné mom candidat bi véhicule. véhiculer mais aussi dañ bëgg xam tay kan candidat bi aujourd'hui le seul candidat bi nga xamné mom au niveau de la commune de Mbao muy le président Abdou Karim Sall and ci ak ay doomu Mbao moo jiite liste bi tudd ànd si kóolute ngir Sénégal te liste boobu tey dañuy dugg ci biir population yi wan leen spécimen bi mais aussi xamal leen ni tey ki ko porté mooy le président Abdou Karim Sall ba nga xam ne mbaaw bu ñu waree voté tey fii ci commune bi ki benn liste rek la ñu war a choisir mooy la liste ànd si kóolute ngir Sénégal dirigée par le président Abdou Karim Sall. asalaamaaleykum man la Adja Khadim Ndiaye responsable des femmes AKS de la commune de maa ngi ci ànd maa ngi ànd nii ak jigéen ñi. waaw mën nañoo ne kii di suñu leader Abdou Karim Sall léegi dafa am mouvement boppam demal boppam ci mouvement am tudde ko ànd ci kóolute ngir Sénégal AKS législative yi nag mu fas yéene cee demal boppam actuellement ñu ngi ci campagne yi di campagne yi ubbee ba léegi tooguñu mom dem na ci all bi campagne ñun ñu ngi fi ci commune mbaw di campagne ak euh, département de Pikine yalla def na ñuy ñaan yalla suñu candidat yalla may ko majorité à l'Assemblée nationale. deugum ma way bax na ci boy campagne yo xak askan yi ñoo xam ne carrément li nga xam ne ci monsieur le maire génn ci APR vers mouvement boppam yaakaar na ñu bari ñu koy demandé mom dafa nek ci APR ba légui waaw loolu tamé jar na leeral ndax monsieur le maire andatul ak APR andatul ak. Amadou Ba dafa jël liste bopam mom la ko legui dafa demal bopam mu liste and ci kóolute ngir Sénégal ak AES loolu defe né ñu bari xam nañ ko ndax euh, li tax ñu bari defé dafa nek ci président Macky Sall ba tay da di kat la jambar la lepp lu ko président massa jox taxaw na ci def ci lu mban mais actuellement nak dafa demal bopam ci législative fasiyene nak demal bopam tamit ba yi actuellement ñu ngi def lu ñu mën sur le terrain ñun defe naa ne terrain bi jaaxaluñu ndax biñ ci dalee wàcc ba léegi dafa yàgg kon nag dañuy wax ne Abdou Karim Sall defe naa bés bu ko yàlla mayee li mu bëgg ci assemblée gee lépp loo xam ne mu ngi koy def dina ko gën a dolli. responsable yi war nañu a jóg gën taxawaat ngir wax ak naa responsable yi jóg nañu nag ndax nag responsable yi tey lañ gën a jóg ndax tey la ñu monsieur le ministre ga a responsabilisé moom actuellement nii mu ngi ci région yi mais ñun ñu ngi fi Dakar. di def ay porte à porte kër gu dañu dugg fa te kër gu ñu dugg na wax dëgg yàlla ñëpp jox ñu suñu seen kàddu ànd ak ñun ndax ci loo xamante ne ni monsieur solo ministre moo ko fi liggéey moom xaarul ba tey doo a wax ak askan wi moom démb la commencé askan wi tey doo a jot kon dañuy wax ne monsieur solo ministre daal moo liggéeyal boppam moom produit la boo xam ne moom jaay na produit am yàgg na ndax nag ñëpp xam nañ ko merci beaucoup kon ñu ngi taxawaat ak ba tey rek si ay soxna yoo xam te ne nii ñëwoon nañ fii ci siège u euh, ci qualité ngir Sénégal nak eh, di réunion nak ngir xol ni ñu mën a gën a eh, liggéey bi nga xamanteni ñu koy liggéeyal eh, monsieur le ministre maire Abdou Karim Sall nga ne nak moo ñu war a teewal kon ci pencum ndaw réew mu and ak su ñom Mama Khady ñom Papa Babacar Doucouré ah ñom Cheikh Diaw ku ci melni ni Omar Ndiaye nga ci wadi nga man ma ngi fi ci csu kon nak and ci politique ngir Sénégal ñu taxaw ak suñu ben yaay nak mo war wax nak ci Haalpulaar su ko défé rek man ñu nak waxal suñu mbokk Haalpulaar yi nga xamanteni te ñoo nekk nak ci commune bu Mbaaw rawatina si Sénégal nan la ñu war rek ngir jappalé monsieur le maire Abdou Karim Sall assalamu aleykum bandiraɓe onon ɓe ganduɗa ko onon goni e commune mbaw o min calmini on min juurima on min ñaguima on duwaw min neddi on duwaw e darade ɗo henne e damal siége amen minen ɓe ganduɗa ko minen goni daranimeɓo hande zac mbaw e ligganademo zac mbaw min gadi ligganade leader amen sehil amen banimen amen gorko mo ganduɗa machallah aduna foof kadi na andimo e moƴƴereji allah te kadi somin gondi e makko won sababuji tahi min gondi e makko ko produit mo ganduɗa belɗo yeyde produit mo ganduɗa machallah sa wondi e makko ala jiyowoma ha hutoma e gueɗe makko banggueji foof omo liggo ha tengti noon e commune mbawo to natɗa foof abdou karim nani ɗon liggo nani ɗon adda social nani ɗon waɗa balle mum minenne so wi hande omo yiɗi darade pour yidde namnanade min dande amen e nder eh, aduna o foof min gondat e makko neɗɗo hannde to yahata to to jogori daroyaade to wona darnde makko ko darnde aduna o fof e darnde yimɓe ɓe fof so haa tengti noon e commune mbaaw te ɗum foti ko yimɓe fof nannga heen ndax ɗum hannde ko commune mbaaw jeyi ɗum hannde so woni député hannde o dariima ɗo henne wonto ngannduɗaa hannde min mbaawa yettaade toon kono omo waawi yettanoyaade amen toon o humtana min haaju amen ndax wonto ngannduɗaa sono neɗɗo no naata toon naannata ɗum toon ko junngo juuɗɗo emin ñaago allah yo allah rokkumo junngo mo ngannduɗaa hannde so min darima e ndeer commune mbaw fofto min jiɗi uh, gasnande mi fof omo gasnana min min dari ɗo yonne noon o ko mayram ñang ko banndiraaɗo ko harpular o kadi ko mariama balde minen hannde daranimo zak mbaw emin ñaago allah to yiɗi faade to e to yiɗi yettoyaade to yo allah duusmo toon te inchallah ma allah duusmo toon ko moƴƴo ko juulɗo ko jurmotooɗo ko joom social uji ko joom ballal ɗum tahi emin yiɗi to yiɗi yettade to yo allah yettinmo toon minen ne omo rendini min e liste he omo waɗi min investir mo ngannduɗaa koye liste he nden o yiɗani zac mbaw o yiɗani commune o fof jaam yo allah waɗan en jaam yo allah rokku en yettoyaade to to woni to kadi emin nduwanomo toon yo allah jogomo toon allah wallamo toon allah rokkamo toon manore haa o artira ɗum e nder commune mbaw haa o artira ɗum e nder horko jere haa o artira ɗum e nder banndiraaɓe e nder enɗam ɗam e nder kosam ɗam salminaama a juuraama anne a jaaraama yo allah wallu yo allah wallu kadi yo allah rokku pulaagu doole yo allah rokku pulaagu doole ya barke fatiha e salatul fatiha jaaraama no feewi jaaraama